dañuy ñëw rek ak yéen ba tey di wëy si diggante Bamba ak askan wi Bamba Fall ana bu bëccëgee lu muy wax ñu ànd seetaan ko. Aliou Sarr mi téye làmmiñam parce que bu dul woon ak Macky Sall délégué de quartier mënu koo doon ñëpp xam nañ ni dëkkul Guédiawaye nga yor AMS yor IAL tey ñu jox la caisse de consignation mais na xam ne caisse de consignation yi kat milliards yi fa ne bu mu mujjee ci milliards deux cent yi deux yoo xam ne kenn wax ko kenn xamul fan la ne. dama ni la mu yor caisse de consignation boobu nga xam ni dans dans quelques mois bu fi Macky jógee dinañu auditer caisse boobu Aliou Sall nag nga xam ni mooy pire président AMS ndax nan la ñuy jàppee ay maire yow taxawoo pour défendre maire yooyu te kat bi mu bëggee falu méridien président raamal na Khalifa sal ba Khalifa sal jàpp ñun ñëpp te ñun dañ ko jàppale mu jàll kon tey dugg naa kaso gisuma Aliou Sall Khalifa Sall dugg kasso les Aliou Sall ba maire yi bitim di ben maire bu Sénégal qui président AMS AMS na xol ko ban couleur lay manam koy kakatar ñu and xol bu Bamba nu Спасибо. На, подирайте меня. Thank you. naa ni leer na yéen askanu Medina xaa yaa ngi ko dégg séeréer jërë ngeen jëf.